juróom-ñeenteelu barab bi suratu maayida aaya juróom benn wa in kuntum junuban fattaharu ku ci yor janaba joteeg soxnaam wala jigéen joteeg borom këram mu ne na ngeen daal di gaaw sangu fattaharu na ngeen daal di gaaw sangu ndax ngeen set ba ci suratu hud aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ci fukkeelu barab bi qaala yaa qawm haawulaay banaati hunna atharu lakum mu ne nitam ña sama doom yu jigéen yaa ngi nii hunna atharu lakum ñoo gën a set ci yéen bu fekkee da ngeen a bëgg bànneex ñii ñoo set waaye góor ni yow set gi ne ci jigéen nekkul ci moom te xam ngeen ne tabarkal loolu mën naa jur ay jàngoro yu bare bare bare ba demee suratu ahzab ba yàlla yi tere góor ñi ñuy dugg ci jigéen ñi zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna la leen wax moo di góor warte fekk aw jigéen rek mu xuus ci seen biir ne asalaamaaleykum góor warte ñëw fekk saal rek nit ñëpp nekk fa góor jigéen ñi nekk fa mu xuus ci seen biir ne asalaamaaleykum góor ba soxlaa paaka ci aw jigéen wala kudd ci aw jigéen wala leneen yu demee ni ko yooyu wartu jël aw tànkam rek waaxu dem ci ñoom ni joxal ma nangam alayhi salaatu wasalaam ci njàngaleem subhaanahu wa taala daf doon wax góor ña ku soxla paaka wala yéen na ko laaj min wara ay xijaab ci ginnaaw aw sàkket ginnaaw miir bi waaye bëtt miir bi dugg ci kër ga dem ba ci jigéen ñi naan abaleel ma nangam mu ne ba leen ko def dee leen yem ca ginnaaw sàkket ba laaj la ngeen di laaj zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna loolu moo gën a teey gën a set ci seeni xol ak xoli jigéen ñi ndax nit du xemmem kum dul gis nit du xemmem kum dul gis jigéen du xemmem kum dul gis waaye xam ngeen góor du xemmem kum dul gis amaa nag bët bu seen ngeen di xoolante loola mën naa jur leneen tabarkalla subhanahu wa taala noonu la ko tëral ba demee suratu mujaadala mu ngay wax ca aaya fukkeelug ñaar ba fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa zalikum xayrun lakum wa athar foofu mooy bi yàlla di defal alayhi salaatu salaam kees ndax ab sëriñ dafa baax ci moom mu am kees guy def weccet xaalis bu xawata ko ma tax ci tàmbali lislaam bu yonent bi masaan na laaj seen néew bi am na borom ñu ne waaw mu ne jullee leen ko waaye bi ko yàlla defalee keesam gii bu ne te seen néew bi am na borom ñu ne waaw mu ne maa ko gàddu moo tax alxuraan di wax ne fa qaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa bu ngeen di waxtaan teeg moom di ko diis seeni soxla kuy diis soxla am na joxe addiya zalika xayrun lakum wa athar looloo gën ci yéen te moo gën a set looloo gën ci yéen ndax ña ko fay joxe ñan nañu dañ koy soxla wa athar te moo gën a set ndax dina tax ba moom alayhi salaatu salaam moom mi mu toog mu man di ci regleel fuqaraa yi seeni mbir mbir la mu am solo ci tëralinu lislaam ba dama ci baqara ay ñaar ko juróom muy fukkeelu barab beeg ñett lahum fiha azwaajum mutahara wa hum fiha xaalidun ñu dugg aljanna bu ñu demee dañ fay am soxna yu set mutahara soxna yu set set dañuy set mooy ñoom seen seen xalaat nekkul ci geneen góor waaye nee nañu sax ñandeeku duñ ko def ñoom jigéen ñooñee dañoo set a set ba du ñandeeku waxuma laa nag ca def ba demee ci suratul waaqia alquran yàllaa ngi wax ne laa yamassuhu illa almutaharun ku setut bul ko laal ku setut bul ko laal ba demee ci barab bi ci mujj muy bàqara aay ñaar fukk ak ñaar ginnaaw ñaari téeméer inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin yàlla bëgg na ñiy tuub waaye yàlla bëgg na ñu set kon ay yooyu yëpp boo ko toppoon mu lay jàngal wàllu set dana ciy dégg ne ñaari set mu am set goo xam ne ndox a ko mën ak set goo xam ne ab yar moo koy mën set goo xam ne ndox ko mën ak set goo xam ne cib yar lay nekk yar la ba nga set boo ñëwee ci fiq da lay wax ne set ñaari xaaj la xaaj bu feeñ ak xaaj bu nëbbu xaaj bi nëbbu ci set mooy setal sa bakkan ci jeexantali bakkaar setal sa bakkan ci jeexantali moy ndax ku def bakkaar bakkaar ba def jëf day def jeexantal ci sa bakkan ku def moy moy ga day def jeexantal ci sa bakkan ana man ndox nga koy def nag mu ne wa zalika bi tawba ndoxum tuub tuub gu dëggu bépp bakkaar boo def nga tuub ko tuub gu dëggu bépp mooy yàlla boo def nga def ko tu- nga tuub ko tuub gu dëggu setal sa xolit ci tilim tilim yi ci nekk jóge ci bokkaale ak tilim tilim yi sikki sàkk ak tilim tilim yi kañaan nga raxas ci sa xol ba mu set bu ci benn sikki sàkk nekk nga raxas sa xol ba mu set bu ci benn kañaan nekk bu ci benn mbañ nekk bu ci benn jël yëfi jàmbur nekk bu ci benn peppu rëy nekk bu ci benn naw fee jëf nekk bu ci benn njistal nekk loolu nag ndox mi koy fóot du doon ndoxum dugg ci wana wi rek raggu waaye al ixlaasul yaqiin moo koy dindi sellal gu wër pëng ak bëgg yiw ak oyof ak itam laabiir ak dëggu te lépp looy def subhaanahu wa taala tax nga di ko def innama al amalu binniyaat ak di def al amal alsaaliha kon loolu mooy wàllu set borom téere bii di alcheikh sidi abdirahman al axdari daa di wax moom ne faslun fi tahaara altahaaratu set qismaani ñaari xaaj la mu ne altahaaratu set qismaani ñaari xaaj la tahaaratu xadasin set cim toj wa taharatu xabasin set ci xabas xadas mooy koo xam ne tiim daa war ci moom wala jàpp wala sangu ku sangu war ci yow soo sangee am nga taharatu xadas set nga ci xadas ku jàpp war ci yow soo jàppee am nga taxaaratu xadas ku tiim war ci yow soo tiimee am nga taxaaratu xadas loolu mooy taxaaratu xadas jàppa ko war mu jàpp tiima ko war mu tiim sangoo ko war mu sangu wa taxaaratu xabas laabu xabas moom dañ ko tuddee léeg-léeg laab gu mag barab bi muy jullee set yare yi muy jullee set yaramam set yaram wu set nag xaw naa yomb barab bi nga jullee set xaw naa yomb yëre yu set xaw a jafe yëre yu set li ko xaw a jafeel mooy tuur ndox mi ñuy wax sanguwaay daf dafa yombut ñaare léeg-léeg nit def ko du ci bàyyi xel ndox mi doon génn ci moom des ci moom mu jóg yàkkamti ndekete am sanguwaayam jeexul ci moom bari na lool lu muy dal aw nit tey alayhi salaatu wasalaam mas naa rombob xabru wala ñaari xabru mu ne ñaar ñii de ñu ngi leen di mbugal mbugal mi ñu leen di mbugalit ñoom jàppi wuñu woon ne liñ leen di mbugale bàkkaar bu rëy la saaba yi nga xam ne ñu bëggoon xam-xam lañu ne ko luñ def alayhi salaatu salaam ne leen kii de moom ab rambaaj la woon ñaar ñum seen ñu ànd dana fexe bañ taqalikoo bañ ko suulee ba tey ñu ngi koy duma keneen kii nag bu daan sanguwaay ñaar lay def fi muy sawee ñépp a koy séen bu ñaar bi bu ne cuub ba ci kanam rek mu jóg tatu xadasin set ci xadas wa taharatu xabasin ak set ci xabas wala yasixu du wér nag aljamiu ñaari set yépp illa bil illa bil maay lu dul ci ndox wala yasixu du wér aljamiu ñaari set yépp illa bil maay lu dul ci am ndox maanaam sangu njàpp boo ñëwee ci bii sang sa yaram fóot sa yére fële ca tiim nag la muy ñaar moo tax mu mu ëmb leen fii ci xabasit li muy ñaar moo tax mu ëmb leen waaye tiim ndox du ko def seetal barab bi nga jullee it ñaare ndox mën na ko ñàkk def waaye soo seetee comme juróom benn lañu ñeent yépp ndox koy def kon su boobaa sañ na ne wala yasixul jamiu illa bil ma téere bi nag fàttali leen ne léeg-léeg gaa ñi dal ci kawam lool dal yu métti boole ko ci téere yi nga xam ne daal taxu leen kii te fekk ne ahaka yi tabarkalla téere bu am solo wala yasixu du wér al jamiu ñaari laab yépp ñaari set yépp illa bil ma loolu ci ndox at-tahiri ndox mu set ma al mutahiri ñuy setal ndox mu set al mutahiri di setal mu ne daal laab gi balaa wér set gi ndox mu set daf koo def tey setal ndax ndox mën naa set te du mën a setal ndox mën naa set te du setal ndox moo xam ne soowa ca dugg ndox moomu mën ndox moomu set na waaye munta setal day am ndox moo xam ne setut munta setal ndox moo xam ne am sanguwaay da caa dugg ndox ma setut munta setal mu am ndox moo xam ne daa set mën a setal mooy ndox moo xam ne dara dugg ca mu am ndox moo xam ne moom set na waaye munta setal mooy ndox mu mel ni ndox mu soow toq wala soow dugg ca moo tax mu ne wa huwa ndox moomu nag nga xam ne set na mën naa setal allazi mooy ndox ma nga xam ne lam yataxayyar soppeekuwul lam yataxayyar soppeekuwul lawnuhu meloom ndox mi daal boo ko tiimee ni ndox meloon la mel aw wala boog soppeekuwul taamuhu caf koom soo ko ñamee la ndox doon saf lay saf aw wala boog soppeekuwul raixatuhu xetam ndox mi daal da nga koo tiim na melawa meloon la mel la caf ko ga doon saf la saf la xet ga doon xeeñ la xeeñ mu ne ndox mi soppikuwul soppikuwul bi maa ci loo xam ne yu faariquhu da daan tàqalikook ndox soppikuwul bi maa ci loo xam ne yu faariquhu yàgg naa tàqalikook ndox xaaliban ci li ëpp li yàgg a tàqali ko ndox mooy loo xam ne dëkkut ak ndox bokkut ak ndox dara bokkuñu fuñ dëkk dañoo dox rekk daje ndox nekk ku néew doole koo xam ne ku ko tooñ duma ko kum tooñ nga duma ko moom ndox moo tax ku dugg ci moom te mosu leen a ànd nga yàq ko ku mu dugg ci yow it nga yàq ko ndeysaan moom ndox ndax néew doole moo tax bi ma yu faariquhu xaaliban bëri wax na koo xam ne siqut ak ndox dara musta ànd ak ndox xamul ndox ndox xamu ko nga ne ko ha mu ne waaw ka zeyti lu mel ni diw xam ngeen ni diw niinal ma ngay jóge ca ku ñuy wax gerte walla ca leneen waaye du jóge cim ndox ndox jóge ca teen ba mbaa ca robinet ba ñoom ñaar suñu àndee rek ndox soppiku na benn caf koog ndox soppiku wala melaw ndox soppiku ndax da nga gis ñaay bi tege ci kaw mu ne wasam ni ak Grèce booba nag mooy ña doon dëkk ca càmm ga di rakt soow ya di ko wayal ca leket yaag tax ya loola ca daan tax niin buñ masaana def ca tax ba wala ca yooyee ndox nga génn ca ndox ma mu am loolee ndox ma loolu ko soppi day tax ndox mu yàqu xëy na léegi leneen a koy wuutu muy baat bi ciy tege mooy waddasa mi ak ñaay kulli yi xeeti ñaay yépp xeeti ñaay yi bokk na ci yii jigéen ñuy diwoo soo ko diwee ci saw yaram sa njàpp toj nga war a jàppaat tem nekk ci saw yaram bokk na ci sarti njàpp la nga dindi loolee la taxoon ci niinaay ba noppi door a jàpp lu ko mooy boo dee jàpp ndox mi du àgg ci saw yaram ca kaw ñaay ga lay yem ndax ñaari lu niin ndox du ko romb day baras ci ku daan soo niinalee say loxo nag tocc mi ko woon ak lu niin tabarkalla rawatina jamono yu sedd yii loola nga xam ne moo la tax da nga ko war a raxas ba mu set ak saabu yeneen ba noppi door a jàpp ci kaw der bi nga xam ne nag moom soo ci jàppee te ni naay nekku ci mu laal ndox mi wala wasa yi akub tër moom tamit xeetu tilim la was saaboo ni ak saabu saabu yii moom it wala wasax yi dasam samn ñi ñépp ku ci laal ci ndox day soppi ndox ma soppi gi mu koy soppi ci daawul ànd ak ndox nag day tax day yàq ndox moomee wala wasax yi ak mbalit wala boog tilimu kër ak tilim yi demee nekk yooyu wa nax wi yi ak yeneen yoo xam ne ñi yii la ñu mel te mënuñu su leen a tudd ndax du xaj ci téere bi ndax boo fi bëggoon a lim xeet yi niin yépp bëgg fee lim xeet yi am ñaay yépp loola du xaj ci téere bu ndaw bi ñu tuddee laxdar yu moo tax mu ne wa naxwihi rek taxu ja wala ba sa du wàññi dara nag su àndeeg ndox soppi melo wa wala mu soppi cafka ga wala mu soppi xet ga bi turaa bi ci suuf suuf daal mook ndox moom ay mbokk lañ mook ndox ay xarit lañ moo tax ba ku amul ndox nga xam ne bëgg ngaa jullitu amoo ndox ñu ne laa demal seeti mbokkam ndox léegi doo seeti kenn ku dul suuf ndax suuf ak ndox ay mbokk lañ moo tax bu suuf walbatikoo dugg ci ndox du yàq ndox lu dul suuf ci boppam dem jaxasoog sobe ba noppi nag ñëw dugg ci ndox su boobaa ndox ne ko ay la yéwén sama mbokk nga day ñoo daan ànd maag yow waaye kii nga àndal ñëw moom xawma ko kooka day daal tax ndox day yàqu moo tax mu ne wala basa bit turaab suuf moom bu jaxasee ndox suuf dong du yàq ndox waaye su fekkee ne suuf daa ànd ak keneen nag ñëw dugg ci biir ndox su boobaa ndox mën na caa yàqoo wala xama yi ak it suufu xorom maanaam daal fi déeg bi taa oon yefa nekk loola du yàq ndox su jaxasoo ak ndox ndax ñoo bokk fu ñu dëkk wa sabxa ak itam suufu déeg yooyu tamit du yàq ndox yii ñaar nag ñaare ca ña dëkk ca àll ba ñoo ko daan am muy xoos yaag cepp ya ci biir ndox maag barax yaag yooyu nga xam ne dañoo juddoo ci ndox ànd ak ndox bokk ak ndox suñu duggee ci ndox yooyee du yàq ndox wa naxwihi ak yu demee ni kii kon loolu mooy li war a nekk suñu bindub tey ci téere bi di al axdar yi tabarakàllah di faslub ñaareel bi ci téere bu ñu tuddee al axdari nee na isa taayanat su ràññeekoo ràññeeku mooy feeñ na bañ xam barab bi mu nekk loolu mooy lu ràññeeku nga ñëw ci sa yére xool gis ci barab bi nga xam ne ci la nekk an najaasatu sobe nga xam ne lii sobe la nu muy def mu ne xusila mahalluha dañuy fóot palaasu sobe ba xam nga ne lii sobe la fii la tàmbalee fii la yem nga daal di mel ni ku raw yére bi foofu sobe si nekk nga dugal ko ci ndox mi daal di koy fete loola soo ca noppee rek tàggoo nga ak sobe isa taayanat an najasatu xusila mahalluha bu sobe feeñee ràññiku dañu daal di fóot barab bi nga xam ne moom lañ xam ne lii mooy taasu sobe bi fa inil tabasat nee na su jaxasoo nag nga xam ne xamuñu fan la te wóor na ne yére bi sobe mi ngi ci nu ñuy def mu ne xusila sawbu kulluhu yére bi lépp la ñuy fóot yére bi lépp la ñuy fóot tabarkàlla balaa ñuy jàll masale mii bi ko bàyyi xaadi ma jaxate kala jànge ca kër ma kala yal na yàlla yokk ko leer ci magi réew mi la bokk feesoon dell ak xam-xam xaadi la woon te mooy attekat la woon te daan sukkandiku lool ci ay asaalib yoo xam ne ñu doy kéemaan la dañ ko mas a indil aw nit ne ko ñu ngi dëkk dëkk sàngam dañ faa rey nit ñu indi leen ñoom ñëpp mu ne ko ko rey ñëpp ne cell mu enquête enquête ñëpp ne cell mu daal di jàng mas jàng masala mi radiallahu anhu ne leen isa taayanati najasatu xusila mahalluha fa inil tabasat xusila sawbu kulluhu mu ne leen laxdari yu nee na bu sobe ràññi ko nañu fóot barab ba su jaxasoo ba xamuñu barab ba nag nañu fóot yére ba yépp mu ne leen ginnaaw xamuñu ki rey waaj te wóor nañu ne ci dëkk bi la dëkk kon nag xusi la saw bu kulluhu nañu rey waa dëkk bi yépp nañu rey mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi ba ci perantal yi namp sax dañ leen di rey ah bu ñu déggee loolu ñu daal di ne ah déet ñun kay buñ ci naree dee ñun ñëpp ñu far wax ko diw mii moo ko rey mu ne ginnaaw xam nañu moo ko rey nag kon xusi la maxalluha kon moom la ñuy amal mbir waaye tabarkalla déggloo jàng dafa neex lool xoolal ma masalaam mii ak loolu mu dégg ci njàngam woowu ak ni mu ko firiñ fàncee ak ni mu leer ak téere bii rek tabarkàll nit nit ñi yaakaar ni daa ñàkk solo te fekk ne yoo ay mbir ngi ci biir kon ñaari masalaa nga noonu bu sobee ràññi ko dañuy fóot place bi mu nekk su jaxasoo ci yére bi nag te nga yëg ne yére bi am na sobe ah xusila saw bu kulluhu yére bi lépp lañuy fóot ñetteelu masala mi wa man shakka fi isaabati najaasa nadaxa wa man shakka képp ku sikki sàkk fi isaabati najaasa ci laal sobe nadaxa na ko wis ndaxte laal na ko luy loolu mooy kii dafa am loo xam ne lii lu sobewu la moom nag muy sikki sàkk ne mbir ñii laal na ma wala laalu ma kon na jàpp ne laal na ko mu wis ko masalan da nga dugg léeg-léeg ci oto wala oto romb la ci dëkk bi ci ndox yooyu di toj di génn ci mbedd mi nga xam ne day génne ci wanag mu wóor na la ndox mi moom laabut najaasa la ab oto jaar fa daw xel mbir ma naawee fa nga daan ne ndox mi day laal na ma sa meneen xel mi ne laalu la de borom la téere bi nee na wis ko gaaw soo ko wisee rek sikki sàkk bi dañ waaye li feeg wisoo ko sikki sàkk bi dañ mukk mukk mukk mën ngaa dem bay kàbbar seytaan ñëw ne la waa yow ndox mi la laaroon léegi bi taxi bi yaa- rombee nag wala bi oto bi rombee nag waaye soo ko xasee wis rek sa xel mi daal di féex waaye boo ko wisut da ngay dem ba ci biir julli ga seytaan yi indiwaat masala mi tegalaat la ko kon su la dara laalee maanaam soo amee sikki sàkka ci sobe laal la moom na nga daal di gis rek daal di génn daal di génn ci sikki sàkk dafa xaw a niroog nag masala mi ñëw bu ñetteel bu ñeenteel bi da nga koy déglu bu baax lu ko mooy ñoom ñaar xàjjale leen jafe la wa man shakka fii isaabati najas maanaam ndox mii moom sobe la waa ji lim am mooy ndax ndox mi laal na ko wala laalu ko bul fa nekk naan ah laalu ma déedéet jàppal ne laal na la tega wis wa man shakka fii isaabati najasa nadaxa ñeenteelu masala mi wa in asaabahu shay'un bu ko dara laalee shakka fii najasatihi muy sikki sàkka ca ndax loola sobewu na wala sobewut fala na daa alayhi jër muy wis ndax sobi sobiwut maanaam tey ndox mi ko laal moom waxul ne ndox mi sobe la day sikki sàkka ndax ndox mi sobe la wala du sobe maanaam dafa jaar ci génn kër bi muy romb kër gi dem am koy tuur ndox ndox ma daal di koy tis aha di ko ndox mi tisee nag mu naan waaw man mbaa fii ma jaar ndox mi ñu ma wis mbaa du sobe mi xel naan ko ah sobe la de loola jërut wis jàppal ne du sobe dégg nga kon ñaari mbir yi mooy mii bi mu lay laal moom wóor na la ne sobe la li nga am mooy ndax laal na ma wala laalu ma jàppal ne laal na la lii nag daf laa laal moom wóor na la ne laal na la waaye jafe-jafe bi nga am mooy da nga ne ndax sobe la wala du sobe jàppal ne du sobe loolu lay wax ci ñaari masalaam yi wa man shakk képp ku sikk sàkk fii isaabati najaasa ci laal sobe nadaxa na daal di wis te jàpp ne laal na ko wa in asaaba u shay'un bu ko dara laalee loola ko laal nag shakka fii najasatihi muy sikki sàkka ca sabes loolee fala nadaa alayhi lool du jar wis juróomeelu masala bi wa man tazakkara najasa ku fàttali ko sobe ci yéreem ci yaramam mbaa barab bi muy julli wa huwa fi salaati te fekk moom mi ngi ci biir ak julli dafa kàbbar di julli mel ni mu doon julli gee mu am ñaari rakka door yëg ne ah man kat xaftaan bii ma sol wala man kat salopet bii ma sol sobee ngi ci xataa na dog julli ga na daal dog julli du julli nag kenn du ko doge ci am benn rakka rek daal di ko fay yemale da ngay def ñaar daal di ko fay dog mu ngoog waaye doo def benn dog ko fa bu fekkee nag rukoogoo da ngaa taxaw di jàng ba mu yàgg sa xel fàttaliku ne yow kat am nga sobe te fekk rukoogoo loola moom am na ci ulama yi yoo xam ne da ngay àgg suuf rek daal di dëgg julli ga am na ñooñ sax dañu ne da ngay walbatiku rek dem ndax julli gi fosoo gut ndax julli wala boog ab rakka mi ngi fosoo ci ruko mu ne kon wa man tazakkara ku fàttaliku an najasata sobe sa wa huwa te fekk moom fi salaati mi ngi ci biir ak julli waaw nu muy def mu ne xataa day dog julli ga gis nga sobe ñu ngi ci sa yëri ngay julli fàttaliku ko dogal julli ga illaa an yaxaafa xurujal waxti lu dul mu ragal génn waxtu wi génn waxtu nag tekkiwul ne tabaarkàlla deux heures et quart jot na kon waxtu waa ngi génn déedéet génn waxtu ci tàkkusaan wala tisbaar da ngay dem ba seen muxtaar jeex dem ba seen daruri jeex loolu la ñuy wax xurujul waxtu génn waxtu yi maanaam tey lii kum doon dal da ngaa dem ba sept heures teg sept minutes wala huit fekk ñuy julli ay dix ak yu demee ni ki yooyu léegi waxtu waa ngi génn loola mooy xaafa xurujal waxtu mu doon ci suba dañuy julli suba kañ la waxtu wiy génn mooy boo demee ba jant bi fenk waxtu wa génn na waaye ci fajar gi ba baa waxtu woowu du jot loola su boobaa lu la fi dal ci wàllu fàtte di julli waale sobe boo ko fàttalikoo da nga war a dog julli xata xataa illa an yaxaafa xurujal waqt